salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki lislaam mbokki diine ñu ngi leen di ziare kenn ku ne sa tur ak sa sant leen wax ne kenn ku ne ñu ngi fekk fa nga toog di la jox loxo naan la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba nu sant yàlla nag julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi gërëm suñu yaakaar yi teg ëllëg Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba di jaaraamal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu wér ak Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem koo xam ne euh, xalifa général nga te nekk fii ci senegal ak tarixa boo mën a bokk ñu ngi la ñaanal gudd fan ak wér. Ah, kii wax ak yéen nag jàkkaarloo yéen ci caméra bi mooy seen mbokk seen xarit seen mbokkum taalibe Serigne Fallou Dieng soldaaru maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine voici une ñëw premier numéro ci une émission bu qui xam-xam diko défé sur site internet espace inc tv di ci ak ak yi di ci ak rek ci xam-xam xam-xam xam-xam dafa doon te alxuraan nee na maa faratnaa fii kitaabi min shay'in alxuraan bàyyiwul dara te suñu lépp mu sukkandiku ci alxuraan ak addis kon ñu ñëw ak yéen ci ràññee xam-xam ind ak yéen ci benn tomb bu naan cat ah, cat nag doon loo xam ne dafa sonal askan wi sonal mbokki taalibe yi sonal mbokki jullit yi ñu ci jànkoonteeg lu bëree bëree bëree bëree bëri ñu fas yéene ci indi ay leeral ak lenn ci li koy saafara ak ku ci bëgg ay pexe naka ngay def ba mucc ci cat nag nekk loo xam ne mbokk yi lu doy doy war ak noonu ndax dina yàqal nit fii ci àddina yàqal nit ba fële mu jëm ci àllaaxira muy dunya ak àllaaxira cat nag doon mbir moo xam ne mbir mu sew la te xam ñaari dina jàpp nit ki def ci yaramam loo xam ne day dem ba jàpp ne des koo liggéey dina téye nit ki ci wàllu wërsëgam ba lépp lu mu yaakaar ci àddina mu tas tëj ay buntam ci lu bëree bëree bëree bëri bëriwaale nit kuy yaakaar muy tas dara warul ko dul cat bëriwaana nit ku dem ci ngoro di wut jabar baa ngay jëkkër mu tëla wala muy yàqu dara war na ko dul cat ndax euh, bëriwaana tamit lu nit di yëngu ci mooy xam anam bu mu mënti doon am ci yaakaar lool dem ba yaakaar ci réussite totale muy far yàqu dara war na ko dul cat moom nag dafa doon loo xam ne moom cat bu xasee dugg ci nit ki day def benn buntu ci biir nit ki buntu boobu nag ci la lépp lu bon di jaaree ba far yàqal ko kumute fa lay jaar ba dugg nit ki ku la liggéey gaaw laa jàpp fa lay ba dugg nit ki di naan seytaane fa lay it ba gaaw a dugg nit ki moo tax it cat lu dangereux la te lu bon a bon la te ñu bëree bëri dañ koy ginaawal ñu bëree bëri dañuy jàpp ne lu simple la lu ndaw la loo xam ne waruñ cee wax waruñ cee jóg te nit bala muy dem fenn di sàkku wërsëg baa muy sàkku ak tijjiku baa lu mënti doon dafa war a muslu ci cat ba pare ndax sëñ Fallou Mbacke mu baax ma daan wax ne ku mucc am kon mucc doon na loo xam ne lu baax ci doomu aadama bi la lu baax a baax tamit ci nit ki la kon loolu nga xam ne mooy cat nit dem na ba pareem njàngam ba war a am liggéey cat gàllankoor ko ba lu bëree bëri mënta la sotti ci moom nit nekk ci bërëb jóge fa dem bitim réew di wuti dara mu dëgër lool mënta am dara dara warul ko lu dul cat ma leen di xamal nag kon dara warul ko cat ñaari anam lay amee muy nit ki nga xam daf lay noonu di la catu ak di la yéene lu bon kooku sab noonu waaye en plus que mi ngi lay catu ki nga xam ne sab soppi laa yéene lu baax chaque jour mu di la tagg di la waxal say baax baax di la waxal say jikko yu rafet ba tey loolu baax na waaye bis bu nekk mi ngi lay catu kon ku ci bëgg a mucc boo fexee ba bindu lu mel ne wa in yakkaadu lasiina kafaroo la yaslixoonaka bi absaarihim lama samiu zikra wa yaqulu innahu la majnun wa maa huwa illaa zikrun lil aalamiin nga bind ko 111 moy limu kavi wala nga bind ko 1111 moy limu la taqaf bu ragal su yalla dogale nga bind ko ko ko euh, ngeer bo ci amé ñetti taaji baxna bu dé jigen la bu dé góor mo ñetti taati ngeer bolé ko mom insha allah rabbi bu yalla dogale mu sango ko lepp lu nekkon ci mom ci xeetu chat suñu borom la ko dogal mu deñ ci saasa ndax li tax mu doy war moy te nit mat nit ñi war ci mëna a xel moy suñu sang bu baax ba Cheikh Bamba khadim rasoul euh, wax ci xasida ak sin نلوكن معيسا لنا من شر حسد ما حسر فم وسر الحين يا الله من يلا صامر وكن نغنيك معيسا دي موسى لنا نيلو من شر حسد كي أي كينيان ما حسر فم أك أي جمين وسر الحين أك أي بط آه يا الله يا صامر kon ku melni cheikh ahmad bamba ak ñu tollu ci borom bu démé bay muslu ci ciat di ku muslu ay ñoñam ak bép julit kon xam na ne ciat lu mëna yàqal nit ki la lu mën a gàllankoor doomu aadama la ci ak dundam kon mbokki julli ji mbokki taalibe yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yoo ñuy seetaan ak ñi nga xam ne yoo ñuy topp ci suñu site internet Espace TV na ngeen xam ne lu doyo doyo war la té lu mën yaqal nit ki la lu mën a gàllankoor nit ki la bari na ku ñu japp ñu japp ne liggéey la ba ñu japp né rab la ba ñu japp né ki des ko def lo xam nak suñu su la fekk né du dara bu sango ci rek lepp dañ ci yaramam muy doon mbir mo xam nak dindi ko ci nit dindi liggéey ko gëna a yomb dindi ko ci nit dindi seytaane ko gën a yomb dindi ko ci nit fekk tawate ko gën a yomb ndax dafa doon loo xam ne dinaan cet bu rëyul semb la day dem ba toll ci nit ki foo xam ne daanaka pour nga dindi ko ci moom lu jafe jafe jafe lay doon ndax cet dina jàpp nit ki ba ci ak jaamu yàlla am bala muy jaamu yàlla da koy waaj wala nit koo xam ne dafa fonkoon jaamu yàlla fonk kurus fonk salatul nabi fonk lu baax dem ba cat dugg ko yooyu yëpp mënatu ci dara mu di ko cet ci lu bon xanaa xamuñu ne cat day dem sax ba xirtal nit ci sàngara baax xettal nit ci am tux ba ak mooy yàlla kon wala yansi billah yàlla ñu yàlla musal ci cat kon ñu ngi leen di dénk yéen suñu mbokk seen suñu mbokk taalibe suñuy xarit suñu am di jàmm képp koo xam ne am nga ku la ci mën a muccal wala ku la ci mën a dimbali nga dem seeti ko te nit ki baax na foo toll ngay def xulu onsu bi li fallaxi ak xulu onsu bi li saa boo jullee ba pare nga def ko ñetti yoon di ko tifli ginnaaw waxtu julli wu ne yàlla sama borom dana la musal ci ayu nit ak ayu bët ak ayu làmmiñ kon mbokk yi ñu ngi leen di sant te di leen gërëm lii nag mooy suñu premier numéro ci suñu émission bii di ràññee xam-xam képp koo xam ne nag bëgg nga ci ay leeral ci wàllu wii ñuy wax wala nga bëgg ci loo xam wala nga bëgg ci ay tegtal ak ci yi ñuy joxe nga xam ne ku ko def ku yàlla sama borom dana la dimbali nga mut ci na nga woote ci suñu numéro bii nga xam ne moom la ñu amee képp ku ci woote di ñu jot insha rabbi boo ci woote daan la defal ay leeral ci li nga xam ne moom muy suñu numéro 77 275 43 00 77 275 43 00 seen mbokk seen xarit seen mbokkum talibé serigne fallou dieng soldaru mam cheikh rafal andon ak yeen ci seen émission rañe xam xam fi ci espace ingi tv jere ngeen jëf yalla jamm yag te jamm sax law dak ci sénégal barké mam cheikh rafal